mbir mu doywaar am fii ci ndakaaru njaay ci benn quartier muy xale bu góor boo xam ne dafa am soxna daa di wëlbatiku nekk ak beneen jigéen boo xam ne laata mu doon takk soxna ci mu nekkal la doon nekk ak jigéen boobu daan nañ sekk di dem fu nekk ñoom ñaar di sekk di def rapport mu doon lu doy waar lool ginnaaw loolu bu mu takkee soxna mu continuer di nekk ak soxna soosu ba soxna soosu tamit léegi am na borom kër téewul dafay nekk ak xale bu góor bi ba mujj bi xale bu góor bi da koy jox ay rendez mu ne ko du ma mun a ñëw ci hôtel duma ma mun a ñëw ci auberge ndaxte man dama am borom kër léegi mu doon lu doy waar lool. soxna si nga xamante ne tey moom la borom këram di def jëf ju ñaaw jooju moo mujj jàpp boroom këram jàpp bu leer nañ si naka la ko jàppee ay vocalu whatsapp mu doon lu doy waar lool ñu fas yéene teewlu soxna si xam histoire bi dëgg-dëgg naka la demee. di sama néegu yaay dama ramaate buy wuy téléphone day daw di laqatoo ko buy whatsapp day daw di nëbbatoo ko téléphone bu ma ko laalee rek muy lox benn jour mu bidd rek mu tokk sama néegu yaay ma tëdd sama néegu yaay moom mu tëdd sama néegu man ma bàyyi ba guddi ma jël téléphone bi ndànk taal ko xam naa code bi ubbi ko dugg si whatsapp bi dégg muy wax ak borom kooku naan ko mu naan ko waa damaa sonn sama jëkkër de mu naan ko waa damaa sonn loo xamante ne sama jabar tax ko sonn naa ma dimbali laa bëgg mu ne ko ah waa ma a ko daan defalee rek parce que amuma jëkkër autrement léegi ma am jëkkër waaw auberge bi moom mënu ma faa dem parce que ma amee jëkkër mii du ma mën a ànd ak góor bi dugg si biir auberge bi xam nga rek day ñaaw mu waa loolu moom dëgg la moom loolu moom dëgg la waa léegi nag mu ne ko fi nga nekk néeg boo jël rek boo ma woowee man dinaa def ndànk ba ñëw te téléphone boobu ñu gisoo moo yàqu ko suñu ndax dafa gumba dafa jékki-jékki rek écran bi def bi pomp ko rek yàlla mi dara tëwul rek écran bi ñëw ma ko sa écran bi da ñëw mu ne ma ah fay ko fay ko ma ne ko fay day yomb daa di jël vérifier numéro gel ma woo gel bi njaga doxaan naa ko si beneen góor te moom xamul ne man jabar jabaroo ma ne ko man sama benn caamin moo la gis rek bëggal la boppam gel bi nangu si saa si ma turam wax ma su ma dëkk yëpp te man waxuma ko su ma dëkk waxuma ko su ma nu ma tudd ko dara moom ma ko yow est-ce sila mo na magkulay mo. Wala ka man ya udah sunang nak Yaw na dulu jadi mo ton. Dulo din sa mandi mo sama mawo. At na ito mo sa mandi ka. Ito ko kong wakaw. Lukan niya. Sa mandi ka bisa Dakas ka naman. Hindi ka mo sa dakaw mamumove. Ipegel binakawo ko. Wakaw mo ka ma. Yan ka dito ma. Ang kayaw latan mo na mayaw latan. Ilan lang. Manhan mu ne ma waaye yow mi ña am ñàkk fayda ba woo ko suba waroon ngaa mën a eggale lay wax ma def ko au pal la ma wax ah waa baax na lan la woon mu ne ma da ngaa ñàkk fayda da ngaa mokki bàyyi nag li lay dóore ngi ñëw sa jëkkër nee na sonal nga ko guddi sonal nga ko bëccëg safoo guddi safoo bëccëg moom mi ngi tëj ma ne ko jërëjëf